man dama dama nekk nekk senegal dama dem Caire bañ ab sombi sombi su ma ko tiimee rek sama xel mi day dee mënu ma ko lekk ma dem Caire nag jàng psychologie la jàng ma on naa xool ba xam man léegi lan moo tax ma bañ ab sombi am na lu ñu tuddee transcendentalisme bàyyi li rek di xalaat te dënk ko fenn danga dem ba ba complexe ba ñëw ma ma ma tiim somb bi bayli somb bi dem mémoire mémoire bi ubbi muy dem ba ak suba goo xam ne dañoo jógee tool nawet la dikk soxna sax maanaam ko sant jaay la soxna sant jaay xam na daal ñu indil boolib somb bi boo xam ne weñ yi mango yu yu yu dijj yooyu bu la xuma xuma yu rek tong ci kimit gi ndekete da ko dugg suba mu sedd guyu ma tibb weñ laa ngi nii toog ci kimit gi ma tibb seex imaasu weñ yi ak seddaay bi taqaloo doon ko ci benn complexe mu daal di baax ndekete kon saa bu ma tiimee soom bi complexe boobu mu ubbi ko xel hmm. mi jàpp ne kat sombi bi mooy sombi booba loolu la wolof di wax xel mu teey xel mu teey bat bu bat bu riis la keroog laa ko jàngal xel mi bu dee mi ngi yëngu fonctionnement bi bari yoo xam nga léegi données yu bari lay lay war a laal tëlu ab sombi mm-hmm. waaye nag saa su ko talee nga xam ne seddaay ba ak weñ ya image bi teew fi moom loolu xel mu teey bu teeyee ba dal day am jot mm-hmm. moo tax jotaay yu ñàkk solo yooyu mu kii ko <laughs> wax na kon olof olof de da indi tur bi dëgg moom léegi lan nga def ko oh, oh, léegi nag bi léegi damay atte ne kon sumbi bii du du booba keroog laa ko lekk mu